Gris 2 rëg-rëg taxaw na Luc Nicolas Enco moo ko taxawal léegi dañuy jox kàddu gi rëg-rëg combat bi tolluwaayam bu nu paree ñaari manager itam ñoom it ci sànni ay kàddu combat bi yaakaar naa lu ma si wax du bëri ndax combat bi Sénégal ñoo ko bëgg te man Sénégal lu bëgg rek dama siy taxaw waaw kon amul lenn lu ma siy wax damay xaar ba bis ba rek si kàttanu suñu borom yàlla yóbbu ñu fa ak jàmm salaam ñoom am ndam loolu rek lay ñaan. combat bi muy combat boo xamante ni yéen ñaan ñëpp dama ne zéro faute ngeen def ndax saayu combat boobu ndax du feeñ ci bisu bisu bisu bisu làmb bi. non man bës bés mënta rëy sama kanam. waaw ndax man bi ma doonee xale laa commencé bëri kon man amatuma lu may ci làmb. làmb combat la rek comme yeneen combat yi waaw kenn du ko yenu combat la rek waaw. même nag bu ma respecté waaw. am si ful la tamit boole si xam fu ma jëm moo tax waaw. mais vi ngay bëre ki nga xamante ni moom tamit musul daanu bokk ci écurie bu mag ak jaar-jaaru làmbam. waaw musul daanu loolu moom lu ma si wax am lenn lu ma si wax ndax tey jii kuy bëre Reug daal daal ah, ñaari champion la il faut am ko des te si kattanu borom ñun ñaanu yàlla des avancé rek nañ gëm si kattanu suñu borom. ak poids lourd bi Gris 2 doon. Hmm. non man faale wu ma poids lourd. Euh, nit lu mu gën a ngand gën maa arrangé. waaw ah, moom sax dafa tuuti. na gën a ngand gën maa arrangé. Gris 2 dafa tuuti fii. waaw ah, si sama man si samay bët. waaw ah, ndax man sama fi ma jëm du fii quoi si kanam laa jëm. mais du moom du moom laay xool quoi. waaw. mais combat la. comme yeneen combat yi di ñaan yàlla yàlla may ñu si ndam. waaw ndam bu sedd guy ñu géej ñëpp di xam ne ni affaire bi faas la ak caaray yàgg nañ dër bi la mais lépp ndox du bàyyi yoonam waaw ndox moom du bàyyi yoonam mais est-ce que toll leen nga ko parce que man bu ne Fass Thiaroye sama xel dem ci mbéy gay <laughs> ndax toll na noonu. non <laughs> combat bi daal Sénégal moo ko bëgg. waaw combat bi moom Sénégal ko bëgg ñooñu bi ñuy bëre ñun moom boo xoolee sax ñun judduwuñu waaw kon combat bi Sénégal ñoo ko bokk. yaay li mu mën a may rek lan la. bëri na. yaay sama bu bu ñuy wax naan comme maanaam comme li ma waxoon rek sama diggante ak Elton nee naa Elton ah, man ak yow lii la nu mu tuddati. Ah, hmm, maa ngi ko tuddee woon non Elton loolu ñëwaguma si. comme maanaam man ak moom Elton dama nekk man ak yow passe temps la rek moo ñu boole. passe temps passe temps tuuti rek. lu tuuti moo ñu boole. te ci kattanu suñu bon bis ba di nga xam. kii tamit lu ma koy wax bëriwul. comme li ma lay wax ay moromam rek. matul mille kees. chaque jour da gi laa koy tuur. waaw. te maa ngi sant yàlla nag comme ndegam ñun ñooy ubbi arène nationale bi. ak avec plaisir ah. Eh, maa ngi siy sant yàlla bu baax. di wax tamit kontaan naa si. waaw et puis arène nationale bi waaw. yaakaar naa ni dégg nañu kàddu yi Reug Reug di doon dellu si waaye ñu dem ci Gris loo jàng ci combat waaw bégaay comme comme d'habitude rek ñun moom ñun moom ay mbër yu ndaw lañ rek toll ci jàngu bëre yaakaar ba ñu commencé ba léegi ñu ngi def ay preuve di def li ñu war ak fi ñu toll yëpp ñu koy jaar kon ni ko waxee léegi zéro faute di ñaan yàlla rek loolu jëm kanam mais ñun moom ku ñu xam xam ne du ñu ñeexu ñebe <laughs> kenn du ñu te yu mel nii làmb li ma ci gën a neex am na ci combat bi parce que ñi koy dégg yëpp dinaa ma ah, am nga combat te loolu man moo may bégal ci combat waaw ndax daan naa fi jël ay combat yu bëri ñi ma xam dañ naa ma ah man jàmm demal lii loolu lii day combat ci yow. mais bii nee nañ ma am nga combat kon niñ ma ko doon waxee ci Ablaye Ndiaye kon niñ ma ko doon waxee ci pagala te c'est pas la première fois ma bëreeg mbër bu musul daanu bii mooy troisième fois. saa woo bëri ku musul daanu. non avec la manière <laughs> daan avec la manière ñun xamuñu dara gaa moom moo mën a bëree moo mën lépp moom mooy yéegal mille kees yi moom moom gaal gi lépp la jël waaye bu bis baa bu bis baa ci biir géew gi ci biir géew gi na ma ko daan waxee rek laa koy waxaatee la fay neex man maa ko fay def dinaa attaqué dinaa koñe dinaa gagné incha allah. yaa ngi bëreeg champion d'Afrique ba pare nekk meilleur lutteur lu traditionnel. da nga may wax ne ma. da manage ah, manager bi nee na ak frappe. waaw ak frappe la boo waxee daan ay amu amagul defet am na deux cent verdict yoo xamante ne nee na dañ ko daan ba pare mu def recours ñu dindi ko. recours yooyu war ngeen ko sax vérifier comme que ay journaliste ngeen war nañ dem CNG vérifier loolu ndax Pape Yékini daan na ko am na beneen mbër bu ko daan mu dem nee na dafa def recours loolu dañ ko mujjee woon dindi parce que temps yooyu amul woon buzz bi mu am léegi ñëw créer benn genre carrière rek loolu dafa baax pour journaliste yi dem xool ko tamit ndax loolu c'est important. avant rëg-rëg gi quoi. avant rëg-rëg gi. bëre woon na quoi kon yooyu war nañ ko def xoolaat tamit leeral ko mais man c'est pas la première fois ma bëreeg mbër mu musul daanu c'est pas la première fois ma bëreeg champion d'Afrique waaw Pakala champion d'Afrique la Auguste champion d'Afrique la Ablaye Ndiaye champion la ci lutte simple bi kon man mbëru mbapat yi fi dugg yëpp ñu jox ma leen yëpp <laughs> am na ñu ma def ak te ndox du bàyyi yoonam yàlla daal miy suturaal jaamam yàlla mi nga xamante ne moo ñuy kattanal ba fii tey jii ñu yegg fi ak sunu ay dirigeants yi nga xamante ne ñun amuñu choix ci mbër bii amuñu choix ci mbër bee dañ ñuy sant rek kii baax na demal jël bëreel ñun xamuñu dara dañuy jàng. mais ngay bëree ak rëg-rëg ci moment boo xam ne bëri ne nañ face ci wàllu bëree am nañu ay difficulté ci mbër yeeg défaites yi des fois mu bare bu mujjul rek yaa Papa Sow yaa Gris Bordeaux yu daanu yow nga ñëw jël rëg-rëg nag di combat bu diis est-ce que moralement du métti non man moom moralement physiquement waaw man moom wax dëgg yàlla bu may dégg moral sax dafa may jaaxal ndax béykat bu ma la waxee leen na rek mooy man dara feregewu ma ci àddina waxuma la ci làmb de ci àdduna yëpp man lu mënti xew lu mënti am yëngaluma lu toll ni tarfataay nen pour man rek benn mbir la bu may dem ne dem lijjanti ko pour jéem ko indi man loolu laa koy jàppee mais man xaw ma fu moral di nekk ci nit xaw ma fu pression di nekk ci nit xaw ma fu jaaxle di nekk ci nit quelque que soit situation bu mënti am Fass moom c'est même chose ñu ngi leen di déglu dinañ ñu yabal kon nit ñu daan yabalee ñu ma indil leen li ma leen daan indil incha allah. élan bi rëg-rëg nekk ci wàllu bëre est-ce que du la handicapé. élan bi ma nekk rek <laughs> man moom ci biir làmb nii waneegu fi lu ma fi waneegul de xanaa ci li simple ba mais ci biir làmb damay bëre damay dem ardo. damay xeex ba sama kanam samay suuf naaw ma dox dem ñëw taxawaat musuma dellu ginnaaw musuma arrière musuma bëre dix minutes musuma bëre quinze minutes man yàlla suturaal na ma ci loolu te am naa yaakaar ne bii comme même chose lay doon waaw di si woowoon nag waa Medina. mais kon da nga bëgg wax ni bi du yàgg. non man lu mu nekk baax na en tout cas man dinaa dem préparer ji li ma sama ay kilifa sant ma def ko. waaw man loolu moo ma intéressé mais man moom intéressé wu ma sax xooluma sax ay mbiram li ma suma ay coach ne ma nii bañ ma dalee wax ba léegi liñ ma sant à la lettre à laa koy def yàlla di ma si suturaal. pourquoi ñëpp bëgg combat waaw parce que man man c'est comme sax xam naa dañuy xool ku mën a jaaxal Gris 2 ndax ku tëll wala ku mën a jaaxal rek wala. ah man de man de saa yu ma tëbee daal dañ naan ma c'est pas la première fois moom tey lañ koy door a wax Gris 2 mais man yaakaar naa bëri woon naa fi ba def ay six combats Ablaye Ndiaye ful la ci mbapat bi ñu ne waaw moom nga war a jël ndax jàppoon nañ ne mënoon na ma teg ay difficulté ma ñëw jaar moom fa ma jaar moom ñu demati ñu ne ma pakalaa ngi ne na ñëwaat ñu jàpp ne war na ma mën a indil problème mais même chose rek mais daal yàlla nañu yàlla suturaal dañuy door a commencé ñun ñu ngi dem entraîné ji di wax njabootu Seydil Hadji Malick njabootu Cheikhul Khadim ñi nga xamante ne affaire yi daf ñu bett ñi nga xam ne dañ koo gis nii rek xam ne ni mu leen bettee ñun noonu la ñu bettee leen wax ne leen combat la Médina Fass Colobane Gueule Tapée Centenaire Gibraltar tund Saafeen sama mbokku séeréer yëpp ñun may sa waali jonn lañ sunu maamu njëkk a nekk buur siin ci àdduna bi kon nag ñu ngi leen di def appel di leen wax ne leen combat bi seen combat la Qur'an yëpp nag képp kuy taalibe nekk ci réew mi ñu ngi lay woo ci combat bi rawatina waa ummal madaaris lil quraani bushraaki yi daara ji nga xamante ne falaa génnee di ko wax suma sëriñ Zeyno Abidin Malick Mohsin yal na yàlla yokk wéram bàyyi ko fi di ko wax ne ko sa ndongolu xeebo am na bis waaw di si tàllal loxo bu baax di ñaan yàlla na jàmm yàgg. Reug Reug kàddu gu mujj gi kon combat bi taxaw na dégg nga lii loo jàng ci li wax ba pare ak kàddu gu mujj. <laughs> Euh, li ma si gën jàng mooy lu ma si gën a kontaan loo mooy maanaam comme lu mu ne euh, day dox sama kaw loolu ma si gën a neex waaw comme d'habitude li mu wax loolu ma si gën a neex si combat bi li mu wax loolu non ma xam combat bi du yàgg dama see gën a neex looloo ma si gën a neex. yow xam nga ni combat bi du yàgg. si moom lay dépendre lu mu indi lu wow koŋ bu indee safaan fekk fi safaan lu mu indi rek man ak moom la. bëgg nga mu am lu mu bëgg rek nañ ci dem. xanaa déggoo ma. loolu combat ñun ñaar buñ demul ardo ñu ñaar ñëpp ñun ñaar ñëpp man de wax dëgg yàlla bugguma ko daan sans dem ardo combat boo xamante ne ñun ñaar dañu war a dem li yi di xaar ci ñun ñu wan leen ko ñu kontaan loolu combat bi combat de rêve la boo xamante ne nit ñi dañ ko soxla war ñu ñëw di wéeronte di ndengeñ di buuxante di xaar ku sonn wala ku xoox dañu war a siggi laalante suuf yi fëggante ku nekk naaj ñu jaabante ñëw taxaw Sénégal yëpp tàccu ku daan ñu xam ne yow la ko yàlla may. waaw lu mu wax moom moom la concerné moom la moom la si moom la moom xalaatam lay wax mais man li nekk fii mu ngi fii toog you know nekk fii moom lan xalaatam. mu ne dafa bëgg xeex. loolu si moom lay dépendre. bëgg nga xeex. moom lu mu indi rek ma tax si lu mu indi rek ma tax si rib di oo tamit waa banlieue bi yëpp. waaw di woo waa banlieue bi yëpp leen wax seen doom am na komba surtout tamit waa Caalaan Jonwaar Ñoojoor Falia Chio Basaar Basul Falia ñëpp maa ngi leen di oo ne seen doom Reug Reug moo am combat di si oo. lu tax xeex. maa ngi ñëw di oo ñëpp. di oo wa ñëpp bu ma jum maa ngi oo ñëpp kuy bëggee Reug Reug maa ngi lay oo si combat bi xam ne seen doom am na komba moo Gris 2 waaw. si moom lay défendre le dafa yaakaar ne yow mënoo xeex lutte simple amul problème si moom lay défendre euh, ay nit dan nañ ko wax ñu dugg sa géew ba régler kocc dama yaakaar moom mu bokk ci ñooñu ay wax nag laa la waxuma la waxu kasaw kasaw ay wax laa la wax waxuma waxu gàllaaj yaa fi tudde waxu gàllaaj uy ma non bul tuddee foofu loolu xanaa gàllaaj kon lay wax ay waxu gàllaaj lay wax pour régler coach mais man man Gris 2 aw ma rek la kaay man bu arbitre nee prix xaw ma taxaw aw musuma bëree round d'observation. bu arbitre bi sifflé da nga bëgg da ngay dox dem. non man xaw ma loolu. même bu du ma avancé wul ci kawam damay sànni ay coups man xaw ma nii taxaw nii di xaar ñu naan bëri leen loolu xaw ma ko te duma ko def. arbitre bi du leen wax bëri leen. man kenn du ma ko wax. ah li muy wax jéem a man jaratul leen may wax dégg nga moom si gàllaaj la ka la ka la ka a teg. kon man amatul lenn lu may wax. kocc ngay def mooy moom day takk gaa yi ba ñu dëgër foofu la ko teg. yaa ngi xalaat foofu la ñun xalaatuñu foofu ba léegi. rëg rëg kenn du dox si kawam wax ji mën naa ratatati nii rek mais bu ñu diggee sa géew ba kenn ku ne dina xam kenn ku ne dina xam boppam kan kan la bu ñu bëree ba pare el bi la may woowee capitaine bi. waaw capitaine bi. waaw. voilà. man bu nekkee sama boss. xanaa fa lay jugee moom kon man bu ma nee boosam moom li ma nar a wooyee man bañ naa ko wax fii sax <laughs> li ma nar a wooyee moom après. Eh. ak na laaj ay moroomam yooru maanaam yi ay moroomam c'est que kii combat bi nit la koo xamante ne ku bëri wax la ndax boo seetee amul mbër bu nekk si Sénégal te du la xas moom boo nekkee Sa Thiès mu ne la xamul dara dafa trompe magam munuñu bëre nga ne Modou Lo loolu mooy habitude am te loolu du du loolu bu ma jaxase ak àdduna kan laa fi wax déglu ma dañuy signature la déglu ñu rek dañuy waxtaan ah déglu ma dañuy waxtaan te yàlla rek tax tax musuma fee xas Modou Lo déglu rek dañuy waxtaan siñaatiir la lii du dañuy signé rek tuuti la you know dama laa jox cër déglu rek déglul non déglul rek dama laa jox cër moo tax nga jox ma cër li tax ma wax fii c'est la première fois ñaate woon la wax ci télé ay giri man màgguma rek jiital biir bëre wax na ko lu dul benn du ñaar di xas kon tey bu fi toog di dellu ay kii naan signature la. non maa yow ñooy signé. non góor du xaste góor fit góor. déglul rek bul bëgg nit ñi bu déglul noonoo non déglul rek wax ma ne lu ñu wax wax wax wax bu ma bu say àdduna non da ma fe dégg bégaay say waxu ko di ko wax foo toll. da ma fe dégg ma xas ma xas ma xas Modou Lo da nga ma xas ma xas Balla Gaye ah. Sa ñëpp. dañ ma dañ ñoo wax ma tontu leen. barki barki. yonent li ne di ko def. ba yonente yàlla ñoo wax ma tontu leen. dugal entre man ak yow la. nit man niteew ma amul problème. niteew ma niteew ma amul problème. niteew ma amul problème mais bu bis baa di nga xam kan mooy rëg-rëg. lu leer nañ daal la ay wax laa la wax. xam ok. man la close wax man la yow la man la ba bis ba. dina leer maa yow kan moo man moromam. ba bis ba dina leer. dama ne da ngay wax rek di xataraayu rek. heure xataraayu bu jotee man bu ma xataraayu yow doo xataraayu. that's <laughs> mu di combat boo xam ne amateurs yi bëgg ngeen ko Sénégal bëgg nañ ko komba bu am solo la. ci làmb ak lu koy yëkkati ñu ngi leen di ñaanal ñoom ñaar ñëpp suñuy doom lañu suñuy jarbaat lañu ñu am wér ñu am jàmm ba jour ba ñu ñu bëri ko bëri bu neex amateur yi gañe làmb gañe Luc Nicolas encore une fois merci siggil nga encore une fois làmb yàgg nga di def lépp loo xamante ne amateur bëgg na ko nga jóg nga taxaw ci lii tam bokk na ci lu amateur bëgg parce que ñaar ñi dañ ko liggéey te ñoo ko wane kon ñu ngi gërëm Luc Nicolas bu baax te xam naa ni am na beneen bu làqatu ci suuf boo xamante dinañ ci dellu siwaat ci beneen combat jërëjëf Reug Reug jërëjëf euh, Gris 2